président Macky Sall ab nappkat la wala juumkat politique ci waxin dib laaj bu fës ci observateur mu xëyee ko tey bëgg xam ci wàllu toxal gi muy toxal ñenn ñi fañ dëkkoon ci politique ngir wàlliyaan si ci moom lu muy am ndam la wala lu muy defi njuumite léeg-léeg yéene kaay bu groupe Futurs Médias di fàttali la mu tuddee expérience yu bon yu mu am moom président Macky Sall ak Idrissa Seck ci misaal Banda Diop Moussa Sy ak ñeneen lu ñeel nag Bamba Fall mi toxu démb observateur ne ndama ngi ci gàccee ngi ci l'info président Macky Sall dafa mel ni transhumance ci xol ba la ko bëgg parewun sax local yi mu ne déejeet Bamba Fall ca noonee la ko doxale woon ci bi ñuy noppee wotey présidentiel yi dal di tuxuloo Idrissa Seck ci lu bett ñu bari l'info ne listam bu gudd la yore di xëcc ndax bëgg a yemale rééquilibré waat moom président Macky rawatina ci local yi ak diwaan yu mag yi nga xamante ni da ko ñàkk ak benn bokk yaakaar le mandat jàpp ne moom président mu ngi ci xat-xat yu mitti jamono yi misaal ya mu ca joxe yéenekaay bi mooy doxam ñaxtu ASP yi gréew bu jàngalekat yi toogaanu ñaxtu ànd sàmm jikko yi ànd gësëm bi di bés bi le jour syndicat yi ci wàllu kër docteur xamle nanu ak yëglu di préavis bu ñu fas yéene amal teg ko ci taabal yi weeru mars jàpp septembre laas ne syndicat yi kër docteur di f ak ànd gësëm fëgg nañu yëlëbaat téere ñaxtu bi ci yéenekaay bi njiital FGTS si Diye Ndiaye ne pare nañu ñoom fédération syndicat kër docteur yi dem ci grève total 25 mars 2022 ASP yi nekk cib grève ñoom seen kilifa directeur général Biram Faye ci Vox Populi di leen axtu ndax ci yoon amunu droit dem grève te képp ku ko ni xamewul yàddu ba mun na dal sa kaw njëlbeen ca nag dina jël matuwaay yu am solo Sud Quotidien xëy moom ci li mu jàpp ne mooy yitte dëgg jamono yu président Sall di palu premier ministre gan xar kanam la war a yore ak ñu war a seq équipe ba ci yéenekaay bi ci waxtaan wu yaatu enseignant chercheur bi di agrégé science politique ca UGB ca université Gaston Berger bu Ndar professeur Maurice Soudieck Dione di ci ñëwaat ci profil premier ministre bi lay doon dëgg mission ak équipe bam bu nu ko dëppaleek njàngat bi président Macky Sall def du ñàkk ci tolluwaayu politique réew mi ak wotey député yi ñëw weeru sulet naka noonu wàllum ndonn gi tribune moom laaj ba mu xëy def mooy mbaadu Bougane Gueye Dany dafa tiital Macky Sall li ko waral boobeeb laaj di nanuy caxat-caxatee ko songee fu ne gëm sa bopp source a wax moom ci rawante bi tàmbali xaat ca mairie bu Guédiawaye ngir contrôler gi ndax ñu ne Yewwi Askan Wi fanweer ak juróom-ñetti conseiller lañu fa am rawe benn dong benn Bokk Yaakaar ma fa am fanweer ak juróom-ñaar moo waral ña ngay waxtaan ñoom Yewwi Askan Wi ak fukki conseiller yeneen yi farul fenn ngir ci kayuk monsieur le maire Ahmed Aïdara ñu mën a contrôler yëf ak dogal ya waaye source a mu nga naan attention ndax dooley xaalis akub jëndaate bu mun a am ci yëf yi dañuy des ak source a mi dalal ministre Mamadou Talla yore wàllum njàng mi moom nee amul stress boo xamante ni mu ngi koo nekkee jamono yi ci xaaru premier ministre kam war a doon la ne ca bopp ba yitteel ko dëgg rek mooy gréew beeg wàllu éducation laaj bi ci ana moo ko gënal ne premier ministre ab technocrate wala politique Mamadou Talla ne moom daal ab soldaar la fu nu ko liggéeyloo mu dem fa dogali président Sall mooy daal di màbb wutali ba ci sax yenn particulier yu gaare seeni woto ngir jëli saxaar gi saxaaru guy géeg rëg-rëg moom ana fu muy teeri dimanche mu leer ñaar fukki fan ci weer wi incha allah sunu lamb xëy jàpp ne bokk na ci atu yu guy gi am nag ngir freiner rëg-rëg physique bu dëgër mental bi naka noonu ak loxo bu diis